lii ñaaw na tout le monde ñëpp ragal nañu waaye taxul nag ñun ñu jógee fii dañuy ragal nag mais duñ jógee fii Kafountine bu fekkee ne loolu la yaakaar duñ ñu jógee fii fii lañ dëkk fii lañ am jàmm. parce que toujours dóor bi daal kii kii ku ñu dóor am na ki nga xam ne kooku dóor nañu ko kuur am na ki nga xam ne fii kenn xamul ndax marto la wala kii lañ ko door dégg nga si bopp bopp bi la kii moo kooku mu ngi fi duuma suuf waaw ñooñu ñëpp daal dañu leen di gaañ. ba pare dem seen yoon. góor yi ñemewuñ jóg guerre ñun jigéen dañoo fagaru dañoo jóg pour guerre ak ñoom bu dee ñoom dañoo tëdd ñu ragal ñu ñu ñu violé ñu def ñu jëf ji ñaaw ak suñuy doom yi ñoom ñu tëdd nañ tëdd ñun dañuy jóg jël suñu matukaay ñu ree ñu benn yoon. dóorante suñu yett lañ yor ak sañuy kuur yu ndaw yi ñu dëbee kaani parce que dafay ñëw dugg seen kër même ngeen nekk ay sangoor ci biir néeg bi dina ñëw dugg dem réglé lu muy réglé mu génn dem yoonam. kenn du ci yëg dara bala lan lamee ngeen di xam na ni nit duggoon na fi bu mu def jey bi wax ma du ñu am ku melni awa mais du yomb du yomb dañuy tëdd duñu nalaw duñu talaw même tay si tay yu mi nekké ni limay nekké ni di wax ak yeen suñu tëddee duñu nalaw man bayina sama néeg fi lay tuxu fi la nek fi lay fi ci kër bu mag bi parce que damay ragal ana tiit rek bu ñu ma woon dem naa ba fof ñu ne ma tey dernier jour bu ñu leen parce que ñu def affaire bi dañu leen gis mala wala sante ne ak soor ba sama fit ni la nekk di def mu ngi yeng ñu ba pare ñu tok fofu ba 10h ñu ne delo len kër ga dañu dem fële suñu joge fofu dañuy jaar fi buma len gis sa ndek sa bunu ma dekk ma bàyyi ndek bi sama fit bo degan fit bi bo suma conseil su ma too bu ba dina daanu sa fit bi mu ngi yëngal rek ma ngi ba gaay bi mu ne ma kay ma dem ma dugg ci biir mu ne ma tedal ki da nga tëdde bu mu bu mu waaw ma tëdd noonu noonu laa tëdd tëdd tëdd ba mu yàgg boor bu sama fit bi daa bañ fit bi mu ngi yëngatu rek mais lal bi sax boo moytu su ma amoon kii sax dinaa yëngal lal bi yëpp kooku rek ma tëdd ba gaay dugg mu expliqué yëpp kaa lu mu demee ba mu dugg si biir mu commencé di wax foofu ñuy wax foofu ay mu ne sama portable pour ma jël portable ma teg ko gars yi bu mu fekkoon portable fu mu tëddoon ma jël portable ma gars bi nee na portable du noonu la ko jëlee ma ne ko du nii nga koy jëlee ma ne du noonu ma ko ah sama portable de duma ko mos a teg nii ay côté parce que lii digital bu daane rek de toj moo tax dama koy teg fële côté njeganaay bi mo ñëwaat ñu laaj ko mu ne kuur moom kuur la ma dóor léegi mu ne kooku daf ko laajte foo jël cours bi nee na si sale bi léegi kii bi gendarme dañu ma laajte cours bi foo leen teg cours bi ma ne leen seen suñ dañu am fële waañ suñu cours yëpp day nekk si bitik si waañ bi fële mu suñu teg kii bi si biir cours bi si biir mu ese léegi ñu dem jël cours bi ñu jox ko léegi ñu ne ma ese da ngay bung ko fekkon mu ngi nelaw eseñ mo ko ose bu muy esel da sama fi du mun yengal mu ne ma tëdd rek gendarme mu ne ma tëdd rek ki di loo def dara mu ne ma yow tapet nga rek <laughs> ma ne bàyyi leen ma de ma tedde heure bu ma génne fofu la commencé di joy joy bu métti sax ah. nit bu ñew nonu bo nit bu nga am ni daf la ñew pour ray ba pare boo ko gis te laalo ko yaa ngi koy xool ne nii rek ñu yóbbu ko léegi sa fit lu muy def il faut que ngay jooy ba pare mu ese moom lu mu defoon sa fit bi doo na a muñ il faut que ngay jooy doo boo moo yóbbaale sama xel bi noonu. maa ngi koy sama xol bi ma jàkkaarloo ak moom tuuti ma jàkkaarloo ak moom tuuti ma ma xam dooleem bi. moom tamit mu xam sama doole xam nga affaire produit daal moo mais bu doon dafa engagé pour bër ak man du kooku du xale bu góor boobu amul doole bu mu may mun a mun bu ma taxawee ak moom jàkkaarloo face à face moo tax sama xol bi dafa tànga ma toog si lal bi may jooy gendarme bi na ma jógal bul xalaat su ma ko mënoon a yey ma yey ko billaahi su ma ko mënoon a eh, eh, rey fu mu ak sama bët ma rey ko kooku der billahi su ma ko mënoon a yëy ma yëyu ko tellement def ma métti métti na ma billahi billahi dama man dama ko bëggoon a jël waaye nangu ni dama ko bëggoon a jël ak mu foto ko ma caméra ko waaye nangu ni li ma njëkk xalaat te li ma njëkk wax mooy sant yàlla alhamdulillah alhamdulillah parce que boo gisee ma sant yàlla euh, yàlla mooy tax lii am yàlla mooy tax lii am ku def ñaaw teef yàlla feeñal na ko ñaan mag yi ñaan paa yëpp nangu na ñaan ñëpp Sénégal yëpp seen ñaan nangu na euh, loolu moo tax ma sant yàlla bu baax a baax bi ma yëgee affaire bi gaaw ma wax ci sama mbokk sama njaboot yi parce que mun na am mu am ay quelques réactions yoo xamante ne ñun sax fooguñu ko moo tax ma noppi mawu suma grand koo xamante ne jabaram lañ faatu noonu Lamine moom laa woo direct mu ma effectivement section de recherche woo na ma Diallo mu ne ma waaye lu ma wax Lamine lu ma wax mu ne waaye defal ndànk nga delal xel yi waa kër gi bu ñu def bruit nañu dal rek ma ne ko effectivement man tamit lool mooy suma xalaat moo tax loolu moo tax wax ma si waa kër gi kenn biñu ma wooyee ma ñu ñu yëgal ma ne gis nañ ko si laa noppi après si laa la woo direct mane ne ma waaw waxal waa kër gi ñu dal kenn bu mu def bri bruit gendarmerie dinañ def seen liggéey ñu bàyyi la ñu def seen liggéey après bu ñu ñëwee le lendemain après ñu ne ma après dinañ ñëw foofu suba mooy mercredi mooy démb euh, yàlla def na ñëw nañ kër ga démb à part de euh, 9 heures 11 10 heures 11 heures ñëw nañ kër ga bu ñu eggee kër ga fekkee man maa ngi fi euh, ñu woo ma ma ñëw ñu andi ku def ñaawteef bi ñu andi ko ba ci kër gi ñu ne ma kii moo rey awa sama rongoñ tuur ma ne kii moo rey awa ñu ne ma waaw ma ne allahu akbar allahu akbar eh, ñu ma ñu ne ma noppi kiiwul dala rek ñu ne ma dalal rek silaate laa tey ma teel si mu ñu ñu andi ko benn mu yëgee ci kaw wanaag bi nu mu yëgee benn mu wàccee benn mu defee agression bi mu expliquer gendarmerie benn mu defee ba pare mu ubbi palanteer bi mu génn lépp expliqué nag ko depuis mu génn ci palanteer bi yoon bu mu jaar pour mu ba ci tali bi expliqué na ko yëpp ma jàkkaarloo ak moom depuis mu tëb palanteer bi mu mu fekk may taxaw ma jàkkaarloo moom mane ne ko yow yaa rey mu ne ma waaw ma ne ko baax na gendarmerie téye ko pour gendarmerie man dinaa ko dóor te man duma ko dóor man liggéey gendarmerie moom doy na ma te man bàyyi naa ko ak gendarmerie ñoom dinañ def seen liggéey te duma ko dóor wax naa samay booy yëpp kenn bu mu dóor nañ ko bàyyi gendarmerie lu ñu bëgg ci moom ñu am ko parce que ñun duñu bu ñu ko dóoree wala ñu gaañ ko lu ñu ut ci moom ci renseignement duñu ko am moo tax ma leen bàyyi leen ko ci gendarmerie ñu def seen liggéey man benn laaj laa ko laaj yow yaa rey aw mu ne ma waaw après mu bàyyi. ñu fa newoon bu ñu ko bayoon nii. du du am hmm du am bàmmeel yar mam bu si bopam sa do ko gis waaw bu ko gis buñu ko bayon ni du am bamel dinañ ko dag dag dag te du am bamel parce que tellement def ñu metti metti bo xam metti nañu torop metti nañu yàq na der dëkk bi yàq na tourisme bi yàq na ñëpp lépp lépp la yàq si dëkk bi dëkk bu mel ni Kafountine ñaata nation ñoo nekk fii si dëkk bi ñaata nation race boo xalaat rek mu ngi fii dëkk bi si dëkk Kafountine bi duut daana seen doole ñu am ñu yóbbu seen dëkk daana seen doole ñu am dëkk bu kenn nit mu yàq dëkk bi naka la naka lay mel méttiwul métti na ba fem métti yem ñun jigéen ñi métti nañu torop bu ñu ko jàppee woon nañu ma bala man balaa ma koy yëg sax boobu maa ngi woon fii balaa ma koy yëg plateforme ñoom ñu ne ma dégg nañu lii moo am bëgg nañu nga dem. ndax nga jox ñu ay renseignement seen woo ma man maa nekkoon ak ñoom man de suma yaakaar suma lépp ginnaaw yàlla ci gendarmerie laa ko teg suma yaakaar ginnaaw yàlla gendarmerie laa ko teg waaw section de recherche ñoom laay teg suma yaakaar ñom ñoy fajal suma problème parce que bu dem man kese la mun naa ko faj faj bo xamantene du melni ak sen sen faj bi parce que ñun duñu ko enquête ñun bu de ñun ñoko tey téye duñu ko enquête té buñ ko enquêté wul tamit dinañ ñak information yu bëri mom kenn la wala lutax mu def ko lan la soxla ci mom lan la soxla ci jigen yi muy agresser information bobu ñun duñu ko am man parce que ñun duñu ko joxe rek dañ koy rey dañ ko rey ben yoon mu jeex duñu am information bi motax gendarme niñ ko téye ni pour enquête ko lol dalal suma dal na suma hel dal na suma hel ñu enquêter ko ñu ndax ki mom kenn la wala groupe la wala lan moko ko tax a ñu xam lepp ba pare ki mo maru dund suñu paré enquête bi ki mo marudunu dund ci aduna bi parce que kii méritéwul dund koo xamante ne day jël bakkan jàmbur parce que ñu mu agressé yëpp moom sañ suñ su sañoon moom di ñëpp dinañ leen parce que moom loolu la foog bu jógee eh, bu mu jógee suñu kër femme bu mu agressé woon fale suma mag la dem nañ dem nañ ko ba foofu moom tam ni mu defee ba mu tëb palanteer bi ba mu fekk ko ci lal bi expliqué na ko yëpp expliqué na ko yëpp mu ne kii dem ko dóor pour man dafa dee moo tax ma ma dem ma ne def ko dóor maire bi yuuxu mu delluwaat foofu mu gën a mu gënaat dóor dóor encore maire bi depuis mu dóor maire bi mu ne depuis mu dóor maire bi mu de mu mu mu dem mu dégg maire bi muy yuuxu si la delluwaat mu dóoraat ko encore dóor boobu moo gën a métti maire bi foofu la noppi pour moom maire bi dee na moo tax mu dem mu ne moo tax mu dem kon kii loolu moo tax ma kii moom mérité wul dund ci àdduna kii su dundee lu muy def mooy gën a garaaw lii man li ma ñaan gendarmerie mooy nañ def seen liggéey ñi seen enquête bi ba mu leer nañ ba mu jeex ñu xam ne enquête bi jeex na ñu liquider ko mu mu jeex parce que kii mérité wul dund adduna mérité wul dund àdduna man de loolu mooy suma ñaan loolu laa ñaan gendarmerie tamit seen xarañteef seen man mën seen liggéey xarañ bi nañ ko jaarale ci yoon parce que kii bu ñu ko bàyyee moom kay mooy seen liggéey bi jaaralu jaaraluñ ko ci yoon bu ñu ko bàyyee mu dund ci àdduna bi encore mooy seen liggéey bi des na ba man depuis bintu maa ne wax ma démb mu ne ma dañuy jàppaku kuy def kaa bi ma ne ko bintu mu ne ma ma ko kii du moom kenn mu ne ma en tout daal moom ñu ngi koy indi de moom kenn ma ne ko ñii bu dee man suma xalaat rek rek rek. gendarmerie nañ ko bàyyi ñu ñi jarul yóbbu ñu dem tëj ko ba yàgg ñu bàyyi ko ñu jox ko jigéen ñi jigéen ñi duñu ñu war a def buñ ko paree ñu jox jeunesse bi tamit ñoom ñu xam ne naka lañ ko war a liggéeyee bu dee dafa am du moom kenn dafa am beneen groupe buñ ko defee dara tem dina wax ah du man kenn maa nekk di def ni wala man kenn dañ ma yóndi wala lii lii moo tax ma koy def wala deret laa soxla si jigéen ñi. dañ mën a ron bay ma duurante ak moom buñ ma bayoon ma duurante ak moom nekk mu xam. position am bi mais aw ma ko. boo bu ma ko amoon noonu laa koy def man du ma tooñ de man sama xol bi dafa gaaw du ma tooñ mais ku tooñ tamit danga may fekk fu ma nekk waaw. jooy bu ma jooy dama xool xale yi rek commencé di jooy ba beneen jigéen mu ñëw mu ne ma bàyyi sa jooy bi xoolal xale yi mu ngi lay xool da nga nekk di jooy jigéen boobu sax mu mujjee mbokk ak man di jooy. moo ne ko affaire bi daf ma métti rek daf ma métti ba pare gis naa ko te ñaar yoon laa ko gis ma dem foo gis naa ko ma ne ko di kii moo ma def lii mënu ma ko xamee ba pare dem ba ma gis ko moo yóbbaale sama xol bi dafa tàng ma jooy dafa daw sama ya sama yaram bi moo daw moo tax ma jooy noonu moo ma yóbbaale noonu du leneen. foo laaj du la wax du leer. du la wax ne lii la ma def parce que ñooñu ñi nga xam ne daf leen di gaañ kenn du yëg ne mu ngi may gaañ joxe ginnaaw même nga tëdd ak nit ci benn lal am naa sama benn élève boo xam ne moo ak rakam ñoo tëdd ci benn lal mu ñëw ba mu gaañ magam ba mu joxe ginnaaw te bi mu joxe ginnaaw ci la rakk ji jeel mu gis deret bi lu muy tuure noonu mu yuux yaayam ak papam ñu ngi tëdd ñoom ñëpp ñu ñëw yaay ji nee ne moom dafa ñëw mu dugg ci deret bi moom mu ne kan moo tuur fi ndox ñu ne ko rakk ji ne ko du kii moo lañ gaañ kan moo ko gaañ xamuñu fekkee victime mbi eleeteeɗam lokkoma ni lañu ko yëkkatie wuti oto ñu dugal ko so oto indi ko ba fii fii la xamee ne fii la wax yaayam man fan laa nekk lal mooma jot doo gis victime boo xam ne ne naa man bu ñu may gaañ jég naa ko déedéet victime yëpp daf lay gaañ ba pare nga doog a yëg sant naa yàlla gis naa ko xel bi daa daal maa dalul noonu de parce que munoo gis benn nit nga ne moom mooy def kaa bi mun na nekk keneen daa nëbbatu ba pare gisuñu ko loolu moom munuma la xel bi daal na benn côté de parce que gis naa ku ma def nii ba pare munuma gom bu fekkee moom kese moo def lii. yaakaar ma benn nit moo war a lembee Kafountine nii. waaye dem ba bu àjjana bu mu duggee si fii ñu indi ko fi mu dugg ak àjjana ñu wax ba pare ñun dugg ñu nangu ñu ñun ñu dugg mais bu àjjana àjjana génnee see si biti ma laaj ko ma ne ko àjjana mu ne ma ma ne ko kii mu moo def lii mu ne ma waaw si saa si dama am biir bu daw démb suma fit bi ma ne suma jëkkër suma fit bi neew fa mu ne ma lala la ne ko lu ma lu génn si man yàlla rek moo ko xam ma ne ko suma biir mii nii di daw démb tiitaay bu ma tiit noonu balaa ñu ko indi rek man dama ñëw ma tëj suma bunta bi parce que ma ragal bu mu xam ni jigéen rek mooy tëdd fii ma tëj sama bunta bi balaa ñoom ñi egg si parce que fële laa leen gis si biti ñu wàcc ma ñëw tëj ma bunta buntu maa ne mu ne ma looy tëj ma ne ko ñemew ma bàyyi ma tëj parce que jëf bu mu def fii ñun yëpp kenn ñemewu deret bi di sotteeku gis nga doom arjana bi bu ndaw bi yeneen saa bu toogee de jàpp boppa bi di ko def nii xale bu ndaw bi ndax deret bu mu gis léegi yow mag sut maa yow mag léegi nooy def ñun dañu sonn gis nga sama mbokk yi dañ ma ne ma dem ma dellu ma dem toogaa foofu Ziguinchor depuis cas bi am fi ma ne leen bu ma demee de mel ni yëf bi maa ko def ba pare dama ka di daw ma ne leen du ma daw du ma dem fende fii laay toog parce que lu ma deful lu ma gisul du ma daw fekkeew ma gisuma buri bi moom dégg naa ko depuis jee di woote arjana arjana depuis xale bi di jooy arjana arjana wuyul jee boobu la jóg pour dem rek xam naa kooku bu mu déggee tànk jee moo tax mu daw ndax moom kenn la wala groupe la loolu de ci liggéey gendarmerie la man de li ma foog li ma foog mooy moom kenn mooy def lii parce que bu dul du moom kenn dina wax ak ñu ñu ci gars yi équipe am yi mais ni ñu ko waral depuis 9 heures mu ngi ci gendarmerie di wër dëkk dëkk yi di wër kër yi be 16 heures la ñu pare ba 16 heures la ñu pare. di wër kër yi kon bu dee moom ak ñeneen ni ah pour man dina wax man ak ñi ñoy def ñu dem seen kër ñu ñu jël leen ko fofu man de suma xalaat mom kenn la en tout cas légui mom muy ci loxo gendarmerie ñom ñoo wara léral affaire bi bu ñu défé ba enquête bi enquête bi jeex dañ xam ne ndax mom kenn la wala mom ak groupe la wala lan moko taxajo am nga gendarme gendarme do doo mun dara. bo raye nit nit bo dula ray rey boo ko gaañ moom tam dinaa ko gañ ma ma fay mom mu dem mu sentir metti bi du non ala ñun ñep ñoo sentir même sa rayu ma ko dinaa ko parce que deret bi deret deret lu may tour deret bari na moom tey foog mu tour deret bi. ma nga am ay njaboot man na xaw man na du duma du sama njaboot yi ëllëg nu def. man awma awma de awma dame forato nako nako sama doom bi nako sama sa yaay lii lañ ko def lii lañ ko def fekk maa ngi tëdd ak yow maa ngi tëdd ak yow ñu def man ni yaa doon jooy yaa doon jooy sax man ma dund ndax moom bu doon du moom man naa doon dee ndax jooyoon bi la ñu dégg ñu ne ma kii jooy ma ne leen xaw ñu dugg si si biir bi ñu gis noonu na forward ndax sama doom ñu mag yi tey kenn bu nekkul si biir néeg bi duñu dugg même guddi bu ñuy nelaw fii man dugguma si néeg bi duñu dugg pour tëdd même bu ñuy dugg dañuy jàppa keneen pour mu gunge leen si biir néeg bi mais pour ñoom kenn ñu dugg duñu dugg. man moom xam nga dëkk bi daal sa su du suñu kii dëkk dëkk jàmbur la bu fekkee suñu dëkk mun naa wax. Eh, lu ma mëna wax ma ñun dañuy ñoo toog rek suba suba bu ñu jóg fii ñu ne jóg leen fii dañuy jóg du noonu gendarmerie ñooy xool lu ñu mën a def rek parce que ñoom ñoo moom seen dëkk ak borom dëkk yi dañuy xool bu fekkee seen dëkk bi mu am tur bi ñaaw ñooy taaw parce que Kafountine dafa rëy léegi trop sax ku nekk day dugg fi xet bu nekk ñu nga fi xet bu nekk ñu nga fi dañoo war a ñu taxaw boo jóge feneen su sori da ngay dégg ñu kafunti da ngay foog ne dëkk yi nga xamante dakaar sa Dakar sax rafet na maa boo ñëwee boo xool kafunti da ngay xam kafunti déggantaa daa rëy trop ñoo ñoo moom seen dëkk daal mënoo ma si wax dara foofu moom. même eh, gendarme ak militaire yi booloo mënuñu sécurité dëkk bi dëkk bi dafa rëy trop eh, amul lumière. lumière bi ci ci mbedd mi rek lay yem xaan yëpp eh, amul amul lumière nit mën na laxut fofu mu def ñaaw teen nañu yokk karange ci Kafountine parce que Kafountine dekk bo xamantene dafa rukkee dafa yaatu dafa lëndëm dafa lëndëm nañu yokk lumière bi nañu yok sécurité Kafountine parce que li li mom bu dee rey nañ ko ki mom paré na mais mun amat ken hamul yalla ñu yalla musalli wal bala lolu nañ yok karange bu mat sekk ci bir Kafountine parce que Kafountine na dekk bo xamantene tourisme instant bi comment affaire bi commencer na kay tourisme comment mo gëna mo ñëk daanu fi Kafountine parce que information bi tassaru na ci euh, fep fep même suñu mbokk yi nek euh, Espagne ni dem may waxata waxtaan ak suma benen boy mu ne ñun fu ñu fu ñu mënta dem ñu ne waa Kafountine yéen da ngeen eh, Kafountine neexul léegi gars yi dañuy reyante foofu ak jigéen ñi dégg nga tuur Kafountine dafa yàqu complètement kon nañ jë dañu jot jël suñu matuwaay ñu kaaraange ñu yokk kaaraange Kafountine man loolu laay ñaan autorité yi gendarmerie ñu ngi fii ñu def seen lu ñu mën a def waaye euh, nañu yokk kaaraange loo moom suma ñaan autorité yi. depuis cas bi am fii si biir kër bi. ñun man may ñetteel ñetteel jabar bi waaye ak ñaareel bi muy foofu ñun ñaari wax bi dafa bëri suñu côté parce que gars dañu ne ñu ñoo fay kii ñu ñoo def fi kaa bi suñu ko gis tiimuñu ko wujje du métti ba nga dem lor doom adama ko nga xam ne bu subaa nga dem dugg fu nga xam ne boobaa yaay lor sa bopp yow mi yónni nit ki waaye fu ñu nekk ni nelaw amatul du ñu nelaw guddi depuis kaa bi amaat fii xaw ma ban kër ci la parce que man xaw ma fi ko fontim bu baax voilà depuis kaa boobu am man nelaw ma guddi chaque jour du ma nelaw guddi léegi bu ma añee ba pare ma ñëw tëdd bu guddee mem nelaw ma damay taal sama portable ma musique ma ne comme ça comme bu déggee musique bi day fone ñiy tëdduñu léegi fu ma nekk ni nelaw guddi aw ma ko moo tax ma jël planche ak bool yi ma teg ni def ñaari planche jël ban bi teg si kaw jël bool yi bunta bi damay jël sama funno jàmbaar bi sama paani yëpp ak siwo ni ma teg si bunta bi ma mun a tëdd. bool yi lan bool yi xam nga bu daanee dina am buri même nga dé nelaw be nga xamni fu nga nekk ni dara bu yëngé di nga dégg. ñu gis da jël plan foofu. waaw da ngay dem côté côté da nga jël plan bi nga teg ko plan comme ça bu laalee palanteer bi pour dajji mhm. bool yi bu ñu daanwee dina yëg bagage yi. bool yi comme bu mu daan. am nga lolu buy la même ñi fu nekk dinañ dégg wala moo tax ma def ko fofu asalaamaaleykum mbokki internet Kéwoulo TV ñu leen nuyu di leen naan daal nag ak jàmm ñu ngi fii ci euh, Kafountine fii nag ginnaaw bi ñu jàppee waa ji doon agressé jigéen ñi boo jot see faat euh, kenn askan wi fi dëkkee nag euh, ci mbégte bu rëy a rëy lañ daal di yeewoo ba tax na nag tey organisé nañu benn euh, conférence de presse ngir daal di yëy yabi ci li nga xamante ne moom moo di mbir bi ñu waaye itam jël matukaay war bu ko defee rek li nga xamante ne moom moo di jëf ju ñaaw ji euh, mun a dakk fii ci euh, Kafountine da ngeen ànd ak ñun ñu dem teewee li nga xamante ne moom moo di conférence de presse bi bu nañ jël ay réaction ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di autorité waaye itam askan ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëkkee fii ci Kafountine dooree ko ci quai pêche bi nous ñu ñuy embarqué fi gal la embarqué bu ñu quai de pêche ñu leen neex les duggé ñu à partir de maintenant dañuy jël ay mesures borom capitaine yi les forces de défense et de sécurité et les responsables du quai de pêche de Kafountine pour que gal bu mënta balaa ñi nekk ci gaal bi wàcc ñu recenser leen identifier leen ñoom ñëpp ku ci andiwul kayit gaal bi la andi dina la delloo ñëpp ñi nga xam ne quai de pêche bi la ñuy liggéeyee xamuñu ndax effectivement fa la ñuy liggéeyee ou pas dañuy jël ay mesures képp koo xam ne ci quai de pêche bi nga yëngu da ngay am carte soit badge wala carte professionnelle bu ñu leen mën a identifier

données yi jox ko délégué de quartier dinañ bayyi registre au niveau des délégués de quartier loolu je pense que euh, joytu yoyu dinañ kay yeggee ñi nga xam les autorités compétentes parce que ñun population bi dinañ ci jël ay mesures parce que nee nañu nag léegi dëkk bi amna yo xamné ci ne ko soppeeku tollu dañ koy changer té dëkk bu organiser lañ soxla